bul fàtte démb mukk c'est important pour nga mën a construire mooy sa avenir préparer sa sa futur sa devenir ñaata démb ñoo doon ñaan di julli macha allah ndax benn mbir boo soxla woon ñaata ci ñun subhanallah ñoo doon sellal ndax benn mbir bu ñu soxla woon moo xam tukki la moo xam moo xam moo xam mariage la moom moo xam liggéey la moom moo xam ak lu mën a doon yaa ngi woon teewoon mooy sa digganteeg sa borom yaa ngi jafandu bu baax sax sa digganteeg sa borom doon sellal doon julli waxtu macha doon def say adkaar doon jàng di ñaan yàlla di ñaan tamit na la ñeneen ñaanal ñoo njort lu rafet ci ñoom waaye ba nga ko amee koo njëkk a fàtte mooy borom bi subhanahu wa taala subhanallah lii mooy ingratitude koo njëkk a fàtte muy yàlla alxuraan jàngatoo ko bàyyi nga ko julli waxtu bokkatul sa programme tudd yàlla moom subhanallah subhanallah subhanallah fàttalikul démb ndax sa tey mën a dëgër et puis nga préparer sa avenir nga mën a préparer sa futur yàlla rek a fi nekk loolu yàlla neen la nañu góorgóorlu jàpp ci borom santaala ak nu àdduna mën a lëbëjoo yàlla rek a fi nekk loolu yàlla neen la laa xawla wala quwwata illa billah